kii sa baay Boubacar Ndour mooy sa baay ndey soxna Mbuuba yaayam ndey soxna Mbuuba mari seen maawaay yaayam mari seen maawo biram ci Amadou Seen maawo Amadou Seen maawo biram ci gàngoli maam maam daa doon ko ma doon gone ndeene nga sëniñ biram saale biigi maama ma nga waaw mais sa xarit yeeg daal xarit yeeg maa kumba kodd mi ci mbaaw maa kumba farbay lambaay ñoo yaddaake birim ak may sa ter yaa moom gàllo géej sama ma ngi di sama ma ngi di di la tag di la wax lu baax ak sa baax